Boy Niang dafa am plan de carrière. Mm-hmm. boo xamante ni dañ ko ko tracé la. Mm-hmm. Sa Thiès bokkoon ci suñu ligne de mire. Mm-hmm. ñu bëre ak moom yàlla may ñu ci ndam. biñ ci paree ñu tasewaat ak la de Guiers numéro 2. biñ dajee ak la de Guiers numéro 2 combat bi li ci xew xew ci gis nañ ni mu demee. Lac de muy muy muy examen boo leen def échec ah. examen bi jàllu leen jàllu leen d'office. waa mais man nag man du ma ko tuddee échec parce que tu sais pourquoi du ma ko tuddee échec. Hmm. parce que làmb la joo xamante ni peut-être am na yu bëri yoo xamante ni yu ci amoon la jarul ñu ciy reveniraat quoi. Hmm, hmm. maanaam mooy keroog làmb ji franchement ku fa ñëw. <laughs> gis nga ne booy bi moo jël initiative yëpp. dëgg la nag làmb moom su erreur amul peut-être. chute du am. parce que def ngeen lu lu kenn musul def ak moom kenn rek moo ko def ak moom di Modou Lo ngeen bëri 30 minutes yéen ñaar. bëre 30 minutes ak moom ba pare danga naan yóbbu ko ardo waaw boole ko di diriger combat bi mhm. diriger combat bi mais bon loolu lépp làmb la mhm. sport la mhm. làmb da ngay gagné tey suba ñu gagné la wala nga nul il faut nga am esprit boobu nga esprit fair play parce que sport noonu la demee ñëw ci ci seen mag waa ci suñu mag waaw mooy waaxu si maanaam lan nga xaw ma lan. waa bu yoon jeexul waa xasul di jeex. waaw waaw c'est xam nga booy Niang. Mhm. il a été toujours euh, cohérent et logique ci si ci ay propos mhm. parce que boo fàttali ko. Mhm. depuis avant muy bëre ak guy gi. bëggoon na bëri ak Balla Gaye dëgg mais boobu waxoon nañ ne ñoragul. jotagul woon. mu bëre ak guy gi après bi mu paree mu daan guy gi. ñu ne léegi il faut mu jël Sa Thiès. mu jël Sa Thiès ñëpp wax ne non bu daanee Sa Thiès c'est tout à fait normal Balla tàllal ko loxo. ñu daan Sa Thiès avec la manière. ba tey la am combat ak Modou Lo. mais ba tey ñun ñu ngi ñun ñu ngi campé suñu position suñu logique. mooy bëri ak Balla parce que la day champion. champion boo xamante ni wax dëgg yàlla am nangul nañ ko ak champion. te bëri ak moom. am na lu muy yokk ci sa palmarès parce que maa daan Yaxya Joob Yékini nii maa daan Moustapha Gueye maa daan Modou Lo rek doy na carnet d'adresse quoi mm. kooku soo bëree ak moom challenge la mm. boo ko daanee am la fu mu lay yóbbu mm. loolu moo tax ñun tamit mm-hmm. ñu bëgg bëre ak Balla Gaye numéro 2 te nag la logique voudrait que ne noo Balla Gaye numéro 2 bëre ak Boy Niang parce que lamb ji foofu la toolu pas maget mais bëgg a moom euh, lu tax euh, parce que da ne yéen ko mën yéen a ko dàq bëre bu combat bi amee euh, daan bi moom doo leen ko werante loolu yëpp fan ngeen ko teg quoi <laughs> non non c'est parce euh, que ku daan Moustapha Gueye daan Modou Lo deux fois ah, daan Yaxya Diop Yékini nga ni kooku moom palmarès rek doy na ci loolu mais ngeen visé ko moom saa waa ji visé ko visé ko rek mais mbaa dooleen si am leneen. non non xam nga nag doomu aadama Pape Maguette lépp lu muy def te amu ci ngëm-ngëm rek na ko bàyyi. Mm-hmm. booy ñaa bi muy dugg ci làmb. du daan Balla Gaye rek moo ko dugal ci làmb hmm. làmb ku ciy dugg rek am na loo xamante ni moom nga visé muy lan hmm. sommet ba roi des arènes te pour nga yegg foofu hmm. il faut nga daan Balla Gaye parce que dafa nekk ci yoon bi ndaanaan la loolu kenn waxatu ko mais nag ndaanaan mooy daan ndaanaan ndaanaan mooy daan daan ndaanaan mooy daan daan ndaanaan ngeen kenn dootu koo werante waaw te mais ndaanaan googu noonu lijjanti ko yombul de waaw Balla Gaye la million de Guédiawaye non dañ koy mathématique rek ñu ne kooku ku ko am combat dootoo nelaw say mbokk dootul nelaw Tapha Kandji sax dootul nelaw non bañaa nelaw dañuy nelaw ba yaandoor ñun nag dama lay wax dara malgré ay jeunes lañ hmm. bi ñu duggee ci làmb yàggul hmm. mais vraiment perturbé ñu nag ci làmb wala làmb ñu foo xamante ni duñu nelaw yombul hmm. parce que dañuy ay gone ba pare mais dañoo teel a bëri nag ay bis yu mag jarul may dellusiwaat en arrière ci carrière bi waaw waaw waaw mais dañoo teel a bëri ay bis yoo xamante ni saa buñ ko dëgmalee ñu ne tey ñu leen yàlla suturaal ñu ñu génn ci donc bëri ak Balla Gaye wax dëgg yàlla bon peut-être sax mën naa ko wax nii ne ñi yaakaar ne ay waxu far la wala yooyu mais yàlla xam na ne teewuñoo nelaw billaay walaay taalaay. mën ngeen manipuler kooku. Balla Gaye làmb la rek mën ngeen ko mathématique comme ngeen wax noonu. làmb ngeen gis ni muy bëri. non waaw làmb la Pape Maguette làmb la xam nga làmb. Hmm. des fois nga seentu fetal ñu fitt hmm. wala des fois nga signalé gox jaar dara xam nga làmb la dañuy wax làmb da ngay làmb daj. suba nga làmb doo daj làmb la rek après bu yàlla dogalee suñu combat taxaw dañuy wure ci bëre rek comme ni ko booy naaxee dañuy wure xam nga wure moom lu ne ngi ci mhm. dañuy wure ci bëre rek Pape Maguette